ci mboolem sëriñ Bousso ak sëriñ Saa buso ñëw fii doon ko siyaare doon ko ndokkee di ñaan yàlla suñu boroom mu jàgg fi lool tànd ku wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ tubaa suñu boroom defal ko lu kawe njortam tey nag ñu ñëwoon ànd ak sëriñ Seex Mbeng mi toog ak sëriñ Moustapha ñëwoon doon siyaare si sëriñ bi doon ko leeral liggéey bi nga xam ne mooy xeeñcu jaar-jaari Serigne Touba ci Gabon rawatina Mayomba ak Lambaréné ak fépp foo xam ne Serigne Touba nekkoon na fa ci biir Gabon muy liggéey boo xam ne Serigne Fallilou da ko sosoon ngir liggéeyal sëriñ tubaa ànd ko mbokk taali bi Serigne Cheikh Mbengue mi ngi toog muy liggéey Serigne Touba boo xam ne ngir bëgg mu ñoŋ mu taxoon mu tal ko ay tànk ay kayit yoo xam ne. leen ci sukkandiku fu waaye man nekk ci àdduna bi mën a sukkandiku ci biir kër yooyu ñëw biir Gabon ñëw def sab siyaar rawat na maa yow ma am benn jafe-jafeñ loolu nag mu liggéey boo xam ne liggéey Sëñ Tuubaa la ñu ginnaaw bi fi sëñ bi jugee nag sëñ Seex Mbeng mii toog ànd ak mbokk taalibe bi yëpp nañu ànd woon ak sëñ bi di liggéey Sëñ Tuubaa ñu fas yéene ko ànd ak njaboot gi ñu àndandoo ba liggéey boobu gën a jëm kanam loolu ñu am ci ndigal bi sëñ Mouhamadou Mountakha mu ñaan ci joxe ci ndigal man maa wax ne carte membre bi nga xam ne moom lañ ci njëkk a dagg moom moo ko daggal ci loxolu boppam soññee ci wax ci waxte mu ñu yaatal ko loolu moo waral ñu ñëw fii ci sëriñ bi doon ko leeral liggéey bi ni mu demee lépp suñu seex mi ngi ñëw na ci léegi xam naa loolu rek mooy kàddu yi li ci des. dañ koy bàyyi ak sëñ Cheikh Mbeng mu leeral ko bu noppee ñu doo jox sëñ bi. mbokk yi jullit yi mbokki taali bi ni ngeen ko gisee ñëw nañ ci euh, maam sëriñ Bousso moom sëñ Massamba faati Bousso nga xam ni moom moo mag ki askanu sëñ Bousso beeg sëñ Saani ko sëñ Cheikh naa waxee léegi euh, sabab bi tax ñu ñëw feet kenn ku ne xam na ni ci le 14 juillet bii ñu jëm ba le 24 juillet. dañuy amal topp jaar-jaari sëñ Touba ci Gabon ñu naan sur le traces de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon mooy dañoo bëgg barab yi nga xam sëñ Touba jaaroon na ca Gabon yépp benn bu ci ne ñu nemmeeku ko ba xam fu mu doon ñu mandargaal fa loo xam ne ku jógeeti ci réew mi ba dem fa boo àggee man cee teg sa loxo man cee teg sa bët ndax téeméeri at yu teg 1902 ba fa sëñ bi jógee ak léegi ñaar fukk ak ñaar su fekkee ba léegi barab ya am na ca yoo xam ni jëmmaluñ fa loo xam ni ñay ñëw ëllëg bu ñëwee mën ko faa fekk loolu moom moo tax mbooloo mii di karawaanu Mayumba euh, jóg li leen tax a jóg mooy topp jaar-jaari Serigne Touba loolu nag euh, ci niñ ko waxee rek jëmm ju baax ju tedd ju góorgóorlu woon ci ab liggéey muy sëñ Fall Bousso dooroon ko ci Gabon ba mu toll fii mu toll ci ay kayit ak légalité lépp lu ca war a am bu Sénégal gépp jógoon bëgg a demandoo Gabon. kenn du ci dem ambassade wala ngay dem fenn di wuti visa ndax waajal nañ ko lépp ci kayit ba ku bëgg a dem rek dem nga boo jokkoo commission bi rek di nga ca mën a dem ca na mu gën a kon daal le 14 juillet bii nu jëm ba le 21 ci la topp jaar-jaar yi sëñ Touba ca Gabon gi maanaam amee topp jaar-jaar yi nag moom mooy projet yi nga xam ne moom la sëñ naa tudd mu làmboo liggéey bi ndax la ñu tax a jóg kat mooy jàmbaar dooni ko kaa ñu xeexi waaye da koy yóbbu ca fa ñuy xeexee. ñuy wax ci turu sëriñ bu Bousso yi nga xam ne mooy sunu mag euh, sëñ bi jox ko ndigal ngir mu waxtaan a sunu gan ñi mu joxaan ma ndigal waaye njabootu sëñ bit ay sëtam a ngi nii toog kon sëñ bi ak njabootam rek ñoo fi toog di waxtaan ak njaboot gi nga xam ne ñoo bàyyi ko euh, fële ca Mayomba jaar Touba ànd ak lenn ci njabootuk Cheikh Mouhamadul Fadil ñëw fii tey ci sëñ bi sëñ bi nag di wax ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi dégg sunu kàddu ci liggéey boobu nga xam ne euh, Cheikh Mouhamadul Fadil tàmbale woon na ko ca Gabon muy liggéey boo xam ne liggéey Serigne Touba la te mu jële woon ndigal la ci Cheikh Mouhamadul Mourtala moom Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla dogal sëñ fàllu nag ab naalam yaatu woon lool waaye nag liggéeyal sëñ Touba rek la ci jublu woon naalu mbir yëpp la ci jublu woon moo waral tey nag njaboot gi ñëw fii ci sëñ bi sëñ bi di soññee na ci jëm loolu sëñ bi nag bu soññee ci loolu xel yëpp war na cee dal ndax moom dafa am histoire ci sëñ bi histoire yu yaatu waaye ci tënk rek sëriñ bu soobee moom nga xam ne moom la teewal tey jii toog ab jataayam ku ne xam na sëñ bi sëñ bu soobee digganteem ak sëñ Touba ci ba sëñ bi duggee xalwa di xool yoon wi bokk na ci sëñ sëñ bu soobee moomee nga xam ne moo soxna jaara ñoo bokk lépp bokkoon na ci sëñ bi lañ ko wanoon mu wóor ko ne sëñ bu soobee de fii ak ngi ci kaw suuf liggéey bii du ko mën a def moo tax keroog bi sëñ bu soobee génnee jamono ñu fekk ko Mbàkke Baari xamal ko ne ko sëñ bu soobee génn àdduna ba mu ñëwee Mbàkke Bawol ba ziar ko ba noppi la xam ne kon liggéey bi mi ngi doog a tàmbale mi ngi bëgg a tàmbale kon sëñ bu soobee nag kii di xalifaam kon war naa mën a soññee ci liggéey bi sëñ Touba te moom mii keroog bi mu feeñee jamono Cheikh sëñ Touba ma nga ca njaareem moom moo joxe ndigal ne nañ ko tuddee sama nijaay sëñ bu soobee am xam ne moom sëñ Tuubaa joxe am ndigalam aw turam ne nañ ko tuddee sama nijaay sëñ bu soobee sëñ bi nag xam ne ne mbokki taalibe bi yëpp mboolem koo xam ne da nekk ci yoon wi rek mi ngi lay soññ waaye nag rawatina waa mbu soobee ñi nga xam ne ñoom la bokkal mbu soobee ndax nee na liggéey bi liggéey la boo xam ne jullit yëpp ci bokk waaye rawatina taalibe yi kon mi ngi soññ boppam waaye mi ngi soññ mboolem taalibe yëpp ñu jàpp ci liggéey bi te xam ne lépp lu ci waaye jàpp jàpp loo ko kenn waaye sa bopp nga ko defal li ñuy wax nag ci turam lañ ko wax ndax moo ñu ko digal ni ñu koy wax ndax sëñ Moxtaar mee la jox ndigal sëñ Moxtaar joxaan ma ndigal mu ne nañu bàyyi xel ne liggéey boobu day liggéey bi murit yëpp la kon fépp fu ab taalibe nekk waxul taalibe yi nekk Gabon waaye fu ab taalibe nekk ci àdduna bi soo déggee liggéey boobee na nga góorgóorlu ba def ci saw ñax rawatina nag mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo dëkk ci biir Gabon ndax liggéey sëñ Tuubaa moom ku ci waaye def itam defaloo ko kenn sa bopp rek nga koy defal te Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Mourtala mi nga xam ne moo jëloon liggéey bi teg ko ci loxo sëñ fallu xam sëñ Fallou xam ab taxawaayam xam la waraloon liggéey ba moo waral mu teg ko ci loxom loolu nag buñ xoolee ci ginnaaw c'est euh, ndigal la ko gën a delluwaatoon Gabon ma nga tàmbale woon sëñ Abdou Lahat kon nag sëñ Mourtala bi mu dikkee daa yeesa rek waaye fi la fekk liggéey bi sëñ bii nag waajuram ak seex ak waajur sëñ Fallou ñoo bokk sëñ bu soobee kon nag looloo tax muy wax ci turam ci njaboota ci turu ak njabootam gi teew sëñ bi ne mi ngi soññ boppam di soñ mboolem muridi waaye nee na ñi nga xam ne ñoo askanoo ci mbusoobe mboolem njabootu sëñ mbusoobe gépp li tàmbale sëñ seexu buso ba ci suuf ak mboolem njabootu sëñ saa buso gépp ak képp kuy mbokk lu aju ci ñoom sëñ bi nee na mi ngi lay tàllal loxo ci liggéey boobu nga xam ne moom nañ door di ko waaj def Gabon muy xencu jaar jaari sëriñ Touba yi sëñ fa sëñ jaaroon fu ci mel ne maa yomba ak fu ci mel ne wér ak yeneen dëkk yoo xam ne daal ndax ku tudd Gabon tudd sëñ tubaa bokk na ci nag li gën a fës ci liggéey bi waaye fañ ko defoon liggéey ba la bëgg suñu borom bëggoon ko faa nag fekk ko foofa fayee ko fa nag ba ñeenti bantam yooyu mu def a liggéey bu yaatu loolu nag kon nag murit bu góor góorgóorlu ba saw ñàkk def ci mm. ah defuloo ko kenn sa bopp rek nga ko defal kon sëñ bi nee na mi ngi tàllal loxo ñëpp kenn ku ci nekk fu waay mën a nekk foo noo fa mën a nekkee moo xam nga nekk Afrique moo xam nga nekk Europe moo xam nga nekk Amérique ak foo ma Asie foo mën a nekk ci monde bi rek laay wax nanga góor góor ba fexe ba liggéey booba bu la ci kenn man dégg naa ko bu baax ndax ñu tax ngeen ñëw fi xam ne dañ cee bokk moo tax ngeen nu boolenu ci kon nag lépp lu koy defar ànd nañ ca loolu la koy yàq ànduñu ci noo ngi ñaan ci yàlla ak yónni ak ñu topp ko ba fa mu jeexee lépp ngeen ci bëggan rek ci ci saayir ak ci baatin yàlla defal leen ko su ndigal naa ci de ndax ne ci sëñ Muntaxa ànd de dinaa ci ànd may itam du ci dellu gannaaw mukk ci barke yonent barke Cheikh Ahmadou Bamba وسالك نار الخلد li baru mayum ba